Gambia Nakan, nakan Gambia ya Gold Ay, ay Gambia Lumada Nakan, nakan mandi mori hmm. mm. eko kayro ni kayro hmm. man soto mm. bu kata nyaato mm -hmm. so nga kayro ke doron mm -hmm. alo nga hadmaya nga baliya mm? kayro ye ta nyaato very good uh, di kontaan bu baax ci kooku di man di moori di bëgg ci moom uh, ak track bu neex boobu noonu hmm. ci Ramatoulaye Eh, di ko bëggee Abdou Ndiaye eh, kontaan na trop feejana eh? feejana <laughs> ba daanaam ah, wax nga alaaji nag duy feeja di hmm. kontaan si moom bu baax a di kontaan si képp ki nga xam mu ñëw seetaan si jamono ji rek hmm. ah, nga nekk newsroom wala si suuf ñëpp di leen bëggee bu baax a baax a baax waaw waaw hmm? a ah, musidɓe am so ndaari on clip rey ɗon foti andude Gambia ko weltare wonɗo oh, ɓey kayro ko ɗum woni jam ha sen heeɓi jam rek haray sare nde yeehi yeeso so komin toroto on ko enen fof ye woni hunde wotere fijen jalen anden ko jam to naɓata sare yeeso a lokkola Halo. hello Ya halo. Ini gini. Apa re? Ya apa na Ya, tudd ak fekkole ok yaa Oke, yang cibir. Yang cibir. Ya. Oke. Lain bisa tunak. Ya, eh, eh, eh, setul nag Ah, waaw mun doo kola bu ah, ñàkk nañ ko di mhm. kontaan si moom bu baax ba a baax 4375 rek 905 mhm. mu ngi naa kool ah waxtaan ak Ramatoulaye ah xamoon nag sa julaat yoon si ko naka la mel hmm? ma ne ma dem maaji mhm. salutal président Jammeh ma bég ah jógee ko foofu noonu démb tamit ñu demaat. Mhm. fii ca ba mu neex. Mhm. lekk benn cin bu bare baree bare mhm. hmm? naan ndox bu seddal. ñu kontaan si képp ki nga xam ne rek euh, yaa ngi woon si programme bi démb euh, July 22nd pageant bi tamit neexoon na trop. di ah, kontaan si képp ki nga xam ne mu fa woon rek. di bëgg ci yéen bu baax waaye fan doo dañu am beneen kola si line bi allo kola allo. allo. Euh, ok waaw di ko may wina bi nag Demba. Mhm. Ah, Miss Mané di ko mhm. ñaanal rek. Mhm. at yu bëree bëree bëree bëri di ko ñaanal ah, crown bi. mu jik ko. Ah, fi mu bugg iga rek yàlla igale ko foofu di ñaanal mboolem ñoo xam ne bokk nañ tamit. ku bi ñoom ñëpp de all winners. su next video bi nag jeewo. ñu ne moo kii wo fulɓe ɓen fof ka saare ɗo e kala mo ganduɗa ene wawi darde ka aduna ɗo Ya, yang मोरेक इंग्लैंड तो भी जाया करते ah bon kañ dañ la gis yaa ko Oke, oke, lañ Oh. gisee oke oke oke, Oke, ok la oke, doon oke oke, naka la tudda hello hello aja yang ci Oke. Oke. naka oke, Oke. oke, oke, Oke. Oke. oke, Oke. Oke. Oke. Oke, jadi aja. ɗi kontan si moom bu baax a baax mhm. ah, ko 4375 mhm. mhm. kala mo faalo on next clip arowo mi hokkima ɗum fulɓe ɓen fof spécially ɓe annduɗa hiɓe ka cuuɗi hiɓe resa hiɓe jogii ɓe ɓe jogii mawɓen ah? no gandi fulɓe ɓen ko teddugal to gandi ah, mi fala mi fala nakala jeew waaw ah, jeew jeew traakon ko jeew wete <laughs> suñ dellusee rek ñu continuer ak suñ dayal jiyaat ñu dem ak boobu dealer, we hit the kneeler. Hey, if that heart got it all, give me the key, man. Cause in my heart I adore everything, ma About you, I'll vibe through, no doubt, boo. I wouldn't choose a different route, true. We need to kick it down, get it weekend out. Jelling, CJ, VA, they hit on Diddy. We are like Connor, and how they need on you. We watch Duata, Kamalaka, Sa in the like Misela, Tanalaka. Yes, I, the only man, say one he got, Jaraku Hula natindera nupima hula sata hande wela jango korum uri wela hande sata jango emeten yuri sioni believe it my mind sees it my mind reason i keep it honest since it right to die she keeps it 100 by my side she made such a killing homicide and these are the things she about she walks like a queen really proud fala. waaw waaw waaw ah jewo mede faala ma jiwo hmm? hmm? euh, viper hmm. a golli jali mamadou jali mamadou ah, lan lañ wax nii ba pare oy mede faala ma jiwol moo ne nopp naa la janxa bi mboolem go janxa boo xam ne am na góor boo xam ne daf laa xajaane jàppal ba dëgër hook and close ah, la mede faala ma jiwo ah, ba pare li ci gën a neex mu ne bu te xamal ne démba neexoon na mhm. ah ñu muñalante rek te xam ne ah Google daal hmm, ko warata hmm. <laughs> di konten bu baax remote lay jalo di bég bu baax ci ah, Kodo soundtrack bi kontaan bu si Ifi Igor di bég ci moom bu baax a ah, baax li neex na trop waaye pa Jali Mamadou mhm. ah, xam naa ne nag isa isa isa isa mwa clip bi mhm. dañu ko ci line allo hello Allora. voice call kole. Ya. Halo. Oh oh. Ya, mun do bobu ñaka nañ Di konten bu baax ci eh, Daniel di bëgg ci moom why waaye eh, waaye di kome may waa State Gas yi. Eh? ok ok State House di mm-hmm. ko may Adama Ndiaye di ko may Cissé di ko may mm-hmm. Balde Diawo mm-hmm. Fall ah ñi yëpp sa State House. seen jiital Miss ah, Martins Mr Martins. di leen wax ne rek jërë ngeen jëf si security bi si mhm. July 22nd bi neex na torop allo allo Kola allo allo yi booy yes ñu ngi naaj jërëjëf jërëjëf yi booy kii dafa mënoo caare de kii waaw caare bu xees caare bu xees la <laughs> kii may ramatulaay ma la caare bu xees la <laughs> dama génne rek sama doom bi ne ma yaa ma la caare non non non caare <laughs> caare boo dina diw de marché bi yëpp diw bi dina ko diwoo di kontaan bu baax ci Ramatoulaye eh, Kima Ramatoulaye jalo di bek ci ah, mhm. mhm. ya, mhm. bu baax ba suma sista la naka sista bu mo bëgg di kontaan si di komedi di ko suma jawar Fatou jame Cissé di ko wane rek ah mu muñ ngon si Ya ko mom dama bëgg rek nga muñ te xamné a. ah Ibrahima yo rek ma xam lolu ha di kontaan bu baax F jame di bek ci di kontaan tamit si family bi yëpp eh, nekk P line di kontaan si ñom bu baax ba fa fan nañ am benen kola ci line bi allo eh, kola ah ndokkale boobu nag ñëwaan guddi aja waaw ah, di ko may Modou Diallo mhm. newsroom aji Ami Cissé Ndeye Bousso Sira mhm. Cissé de Kumba Demba ya Fatou Thiati di kontaan si ñoom yëpp daal hmm? mhm, di ko may Francis Mendy hmm.